soppiwaat ko fexe ba taxawaayam ñu deferaat ko décision yu muy jël askan di ci gis seen bopp contrairement ak bët bi nga xam ne moom lañ ci am mu mel ni tey dañuy jël ay daan di teg seen kaw di liggéey ngir keneen. merci beaucoup ci euh, li Salma addu ak lii euh, Ousmane Sarr addu macha allah ci qualité bi ñu bi ñu développé ci wàllu CEDEAO dama ànd ak ñoom à 100 cent ba pare dama dama leen di roppi sax ci lu ñu wax man. dama jël ah. benn position déjà ci euh, mbirum CEDEAO mooy. le président Bassirou Diomaye Faye du mës a réussir loolu. mission bi ñu ko dénk nii. non du ko mës a réussir. Mm-hmm. xam nga lu tax euh, non seulement dafay jàkkaarloo ak ay nawleem di ay jiitu réew même bu fekkente ne dañu leen di wax ni armée lañu bu nangu seen réew mais ay nawleem lay jàkkaarloo. mais bu fàttee ne tamit day jàkkaarloo ak ay peuple day jàkkaarloo ak ay population Ousmane Sarr développé na ko léegi population boo xam ne nii tey jii. ñoom ñoo bëgg armée yooyu yore leen seen réew tey parce que lan lañ doon dund mooy des monsieur France Afrique yoo xam ne ni ñoom ñoo fi nekkoon di dox ngir Macron ak ñi fi nekkoon waaye itam di def ngir France jëm ca kanam Afrique dellu gannaaw. mais xaajaloo bi est-ce que indi néew doole ci ñun ñëpp dajoowaat. mais naka lay indee néew doole euh, euh, àndandoo koo tolloo li mbagg. Mm-hmm. beneen bi mooy wax ma sa nawle wax ma sa àndandoo ma wax la ki nga doon. Mm-hmm. sa gis nga bu fi Sénégal bàyyee Burkina bàyyi fi Mali bàyyi fi dëkk yi nga xam ne tey jii ñett ñii nga xam ne ñoom ñoo bokk boole seen doole tey. dem fekki ji France. Mm-hmm. ndax di doxal CEDEAO ay liggéeyam Sénégal dina duggaat ci guuta goo xam ne dootuñu ko xam fu koy. fu ñu koy waxee ji man nag position bi ma gis ne moom la le président Bassirou Diomaye fay jël ngir ñu sant ko loolu ñoom CEDEAO pas yu màgget yooyu fa toog ñu ras ñooñu les monsieur France Afrique yooyu nga xam ne damay bañ a tudd seen tur ñi nga xam ne gàcce gu Afrique nekk tey ji ñoom ñoo leen ko teg parce que lan ñoom ñoo xalaat ni der bu weex moo gën der bu ñuul te ñoom ñuy ay der yu ñuul kuk kuk kuk ñoo xam ne nii ñi ñii di seen ay réew dañ leen fee tegoon ci at yañ leen fay teg yaakaaroon ne cinq ans yi teg seen mandat wala sept yi teg toog seen mandat fii ci Afrique dañuy jaaree suqaliku ñu ñëw jaay seen ngor ñoom jaay seen jom jaay seen fulla ne sax am ñu ko woon jël seen seen seen askan dugal leen ci guuta jël seen dëkk jaay ko jaay ko jaay ko France ñooñu tey jii waruñu woon a yónni le président ba Bassirou Diomaye Faye ñu ko woon a yónni mais nag dama jàpp ne li tax mu nangu ko ak rupture bi ñu commencé ñoom ci Sénégal ak li ñu woote ci àdduna bërngal këpp li tax mu nangu ko mooy des euh, euh, euh, maanaam stratégie yu ñu war a teg parce que teg stratégie moom moo leen indi ñu jële fi mag sàll mii nga xam ne monsieur France Afrique la woon donc pourquoi pas ñu fexe ba maîtriser les monsieur France Afrique yi nekk biir CEDEAO ci kaw pour l'instant nii nii jox leen bopp xam li nekk ci biir parce que ñu la ñu la ñu yónni la ci ab ab ab liggéey tax na yow tamit nga mën leen a infiltrer xam li nekk ci seen biir te bu mbiru Bassirou Diomaye fay pare ak le PM Ousmane Sonko mooy CEDEAO day tas ba faaw xam lu tax muy tas ba faw Sahel mii nii dootuñu ëlbatiku fenn benn yoon demaat bokkaat ci tey ji euh, CEDEAO. mënatul nekk mais est-ce que président Bassirou Diomaye Faye mën na gàntal mission bu nu mel ndax moom ci biir kàddoom moo ne. ça serait le pire scénario que seen frère suñuy frère africain yu nu mel génn ci CEDEAO et ça serait un coup dur pour la démocratie africaine aussi. mais du le président Bassirou Diomaye Faye moom moo njëkk a gàntal ci ba ñu ko bëggee teg ci bopp CEDEAO kon gàntal bii du du doon problème ci moom parce que xam lu tax. Euh, amul benn yoon les monsieur France Afrique yi nga xam ne ni ñoom ñoo yor CEDEAO ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dañu ne le président Bassirou yi fay wala le PM Ousmane sonk ba ñuy ramper pour ñëw ci réew mi am na benn loxo bu ñu leen teg maanaam amuñu benn légitimité pour ñoom def loo leen wala wax loo leen man nag li ma gis moom mooy stratégie la pour le président Bassirou yi fay nangul leen seen yónnent boobu pour après ñoom ñooñu mettre leen euh, yóbbu leen ci ci kaw yóbbu ci ñu ñu jóge ci seen euh, kaw dëkk yi. ànd ak seen askan teg fa ñeneen ñoo xam ne nii tey jii te loolu lu mën a nekk la. lu mën a nekk la tey jii bu Niger jógee Mali jóg euh, Burkina jóg ñu ànd ak Sénégal ak Mauritanie ak ñeneen ak ñeneen ak comme ci mënti doon bu ñu bëggee génne les monsieur France Afrique ñu génne leen ci dëkk yooyu nga xam ne. pour l'instant ñoom ñoo leen jiite ne ñoom ñooy doxal CEDEAO seeni tànk parce que CEDEAO lan la c'est la France. barki de moo Ndiaye ba fa euh, euh, le président Bassirou Diomaye Faye toogee loo gis. ñàkk nan nan nga gis ci ci ay ay photo lu rusloo lu rusloo ñun ci suñu xeet ñun lu ñu rusloo ay nit ñu weex tàll nga gis ñu toog ñoom ñoo yor seeni ay bic ca nañu ko tàmmee woon ci suñu jamonoy maam yor seeni ay feuille fas yéene ci mbind ni nga xam ne noonu la ñuy def pour jaar ci suñu kaw jàll Sénégal mënul Afrique mënul continuer yor France ci côté yépp dootul am te nii nga xam ne noonu la Burkina Mali ak Niger jógi jógtee loolu la ñuy wër wax ma sa sa nawle nag ma wax la ki nga doon mooy mm-hmm. ñun ñoo ñooy sunuy nawle xam nga lu tax ma wax la ko. Mhm. lépp luy jóge France ñëw di dugg fii ci ci Afrique taxes yi ñu la ciy teg. Thioro ndax da ngay insinuer génn Sénégal ci CEDEAO fekki AES. bien sûr déggu li ma la wax. dootul mësa mësa mësa ba le président Bassirou Diomaye Faye du mësa réussir li nga xam ne moom mooy moom mooy li ñu ko yónnee parce que du jàkkaarloo ak les présidents poursuivis comme ni ñu koy waxee les euh, euh, euh, militaire yi yor dëkk yooyu mais xam nga ñan lay jàkkaarloo. peuple yooyu lay jàkkaarlool. gis nga réew yooyu xoolal na fi parce que waxtaan war doon xëy na ñu jéem a xool naka la dellusee mais ñoom tamit ñu wax gis-gis bi ñu am ci CEDEAO tànk yi nga xam ne am na ko. te taxawee ni ñu jëm ko soppaat ni est-ce que war noonu ne mais du ñun ñoo fi toog bi Mali di génn ci CEDEAO ñun ñoo fi toog Mali dàq caqat ñi nga xam ne ñoom ñooy militaire français yi ñun ñoo fi toog boobu ba tey Sénégal moom moo fi toogoon wax euh, Ousmane wax na ko léegi bi ay Aïssata Tall Sall yoree ay ay ay. Euh, euh, euh, takk def fii ci ci ci cees di leen préparer pour bu CEDEAO woonee o ñu dem attaquer ji Mali du boobu ñu ñëpp a fekkee te teewul le peuple euh, euh, euh, malien amul benn yoon lu ñu raf wala lu ñu tiit amul benn yoon lu ñu jógee ci ginnaaw ki nga xam ne tey jii moom la ñu ne moom moo toog ci bopp réew mi donte ne da ko da ko fuqar ci ci ay loxo ñoom looloo leen gënal loolu leen gënal nag bu fekkente ne le président Bassirou Diomaye Faye ak li koy xaar fii ci Sénégal la mu war a jënti lépp ci Sénégal moom moom ak le PM sénégalais di leen ci xaar bu ñu ci bëggee boole le pays Mali dëkkub lëmm boole ci Burkina boole ci Niger ah ñoom it seen cëgal guy la moo tax ma ne la duñ ko mës a réussir. tey dama ne la stratégie bi ñu teg ba génn fi monsieur France Afrique di Macky sàll mii joxoon doole CEDEAO ci Sénégal ñoom noonu la ñuy def ba CEDEAO gee ñu jële fi pas yi nga xam ne ras nañu ñu euh, Afrique benn njariñ mhm. seen lépp moom mooy jaay Afrique lu baax. lu ne ñu jël ko jox ko jox ko la France. mais yow Coro da nga wax lu am solo parce yaa ngi naan paa yu ras yooyu. tey jii rapidement mais tey lan lañ leen di reproché que dañoo def coup d'état Alassane Ouattara mu ngi ci ñaateel ñaata ñaata euh, mandat wam bu bu ñu kuuree troisième mandat day lijjanti quatrième jamono ji quatrième mandat la wa Alassane Ouattara di lijjanti Togo dem nañ ba ci toll ci campagne électorale ñu ne leen naxee mbaay. waaw amatu fi élection présidentielle dootul am. Hmm. élection législative la ñuy def bu ñu demee ba tabb député yi député yi ñooy toog tabb président bi te ñooñu ñu ngi biir CEDEAO ba tey hmm. est-ce que loolu weesu na putsch. mënu coup d'état constitutionnel dafay am. wala coup d'état par les armes mais coup d'état coup d'état la. donc il faut que ñu am raison garder. te xam nga xam nga xam nga lan la ñuy waxee Sénégal ay noo duñ seen nawle xam nga lan la. Mhm. ñun suñu réew mi yàlla moo def ni euh, sëriñ Touba maam El Hadj Malick maam Rawxaan mag ñu baax ñooñu. Mhm. ñoo def li tax Sénégal. génn ci guuta bi leen mag Sall dugaloon. Mhm. est-ce que xoon nga. am na ci benn côté boo xam ne boo koy xool daanaka dañ koy. dañ ciy fekk si Mali maanaam sunu nawle lañ ci côté yëpp. Mhm. parce que bu ñu bu ñuy tey lim Sénégal daan ne non ci élection lañ fi jëlee mag sàll aussi euh, du question ay armée ñoom ñoo jël réew mi. maanaam ñun loolu lañu ñu nuróowul ak Mali. Mhm. nuróowuñ ko ak Guinée waaye ay nit dañ mais déglu révolution fi am lépp lu ñu xeex. Mhm. ci révolution mhm. ci génne France ci génne euh, monsieur France Afrique yi lépp lu ñu def ñun ñoo ko àndandoo. ñun ñoo ko nuróole te ma ma ñamala foofu tuuti rek. rapidement tey bu ñu soxlaa tey jii. luy jaar ci sunu dëkk yi diggante Burkina Faso ak Mali ak Fra ak euh, Mali. ak Sénégal gii ak Mauritanie ak yeneen ak yeneen mu mën di jóge ci réew yooyu di ñëw di dugg si ci ñun mhm. ñoom li ñu amul ñun ñu leen koy jox ñun li ñu amul ñu ñu koy jox est-ce que tey jii dina sonn dinañ sonn ci buñ boolee suñ doole ci ay taxes yoo xam ne ñun dañuy xeexante ci ay ay ay euh, duggal génnal yoo xam ne nii tey ji suñu ay milliards la ñuy ñàkk bu leen neexee ñu toog ba mu neex leen ñu ne noonoo ñoo leen ñu lebal leen xaalis après ngeen fay ñu lii euh, pour 30 ans pour 50 ans après yéen seeni ay ay ay euh, doom ñoom ñoo ci wala seen ay sët ñoom ñoo ciy ñàkkaat seen seen alal wala ñoom ñoo ci retardé waat donc ñun ñii sunu nawle moom mooy ñii nga xam ne tey ji ñoom ñoo bokk ci Sahel mhm. ñooñu ñooy sunuy ay nawle te euh, loqati France ci dëkk yeeg dëkkaat yi ci biir mhm. Afrique loolu moom moo ñu war maanaam